surtout mu am benn événement bu mag bu ñu jëm combat du siècle yaay naan combat royal mm-hmm. dox ci diggante Modou Lo ak Eumeu Sène mm-hmm. li ëlëm bopp yi fi nii mooy kan mooy daan ci combat diggante Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 Sénégal Fort TV, Forever. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaare di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax amaat nañu mbégte ak contentement dikkaat ak yéen ci émission bi ngeen tànnal seen bopp di ëttu xam-xam ëttu xam-xam doxantu tey ba fii tey ci diwaanu yaraax euh, seet si fi koo xamante ni daanaka jaratul sax ma koy présenté ndax mbokki internet yi mis nañ ko ba noppi ñu di ko wax euh, Soxna Awa Fall maman ñu ngi leen nuyu di la jaare tey itam di la jox sa wàccuwaay. waaw sama doom fay naa leen. fay naa leen bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm di fii ci sama biir kër. Mhm. macha allah. effectivement boo demee ci làmb ji gars yi dañuy faral di wax naan mbër bi moo ñu ko tàmbal mhm. bëre daan ñibbi waaye ñun dañuy wax ni maman Awa Fall moo ñu ko tàmbal mhm. seet bu leer ñu réer mu gind ñu effectivement comme ni koy defee rek euh, saa bu événement amee ñu ñëw seet si la bu ko defee dal ci waxtaan ak yow nga gind ci askan wi ndax itam euh, soxla nañ ko bu baax a baax mm-hmm. fi mu toll nii mu am benn événement bu mag bu ñu jëm combat du siècle yaay naan combat royal mm-hmm. dox ci diggante Modou Lo ak Eumeu li ëlëm bopp yi fi mu toll nii mooy kan mooy daan ci combat diggante Modou Lo ak Eumeu Sène. ay eh, sama doom comme ni ma koy waxee saa su ne yéen seet waaye sama kër sax bu dama ci kontaan lool. Mhm. waaye maa lay biral benn mbir ñun diggante Modou Lo ak ak ak. Eumeu Sène bi ngay wax. taxañ nañ ko ba yàgg sëñ bi. Hmm? maa la wax li ki ciy daan. Mhm. leer ma nañ suñu bët. xam nañ ko te yàlla leeral nañ ko ñu ngi ci fu mel ni de ma defoon naa leneen nga may wax si sax mais bu dee lool rek la temps bi na ne à côté ku ci bëgg a xamal ndax Balla ama eh, mooy daan. Mhm. wala Modou Lo mooy daan. Mhm. numéro baa ngi comme ni ma ko waxee woon rek ah man ñi ñi ma ko toj xam nañ maay kandi. effectivement am da koo fàtte. déedéet <laughs> waaw kay. effectivement mbokku internet bi. Mhm. xam nañu koy soxna wu fa la ma waxoon ak ñoom ca Balla Gaye Modou Lo ba. bañ ma owee ku ci nekk ñam nga ma xam nga la may saf ndañ ma ñama numéro bango kii waaw maanaam bu ma déggee sa galan wax dafa mel ni kon képp koo xamante ne nii woo na mère Awa Fall mhm. jaar fa mu war a jaar kon c'est sûr et certain que dina xam kan mooy daan ci diggante maa ko wax ci kàttanu suñu boxam woote numéro bango ku woote ci numéro boobu rek macha allah dinaa kuy daal ndax loolu pare na ñu ngi ko dëx bi yàgg man fu mu maa ngi ci leneen de saison bii di ñëw. Mhm. ki ci war a ki ca war a bëri ñun ci nekk fu mu waaye pour bii pare na yàgg na ndax yàlla noppi na ba pare yàlla dafa maye de. effectivement yàlla dafa maye. bu kenn xeebal li kay yi la yàlla may doomu aadama. Mhm. maa la wax lii. effectivement bu kenn xeebal li nga xamante ni moom la ko yàlla may mën na ko mënu ko carte gi leer na wala leerul numéro bi moo affiché wu noonu ci bas écran mais maman dafa am loo xamante ne nii daanaka liñ koy gis léeg-léeg ci làmb dafay xaw a bari tuuti mhm. wala sax genre événement yu mel nii Mhm. mooy léeg-léeg nga dégg ñu ni euh, combat bi jeex na diw ñàkk na bakkanam dëkk sàngam wala diw ñàkk na bakkanam dëkk sàngam mhm. euh, dafa mel ni kon genre xew-xew yi boo amee même ñi nga xam ne seen yoon néew ki sax war nañ di defar tamit ñoom tamit seen bopp yi aussi waaw bu baax sañ bi parce que xam nga mbirum mbër yi dafa day waar mbër boo xasee jublu ci wàllu combat li ma ci xalaat mooy que ne na am ndam aar boppam ñàkk boppam ba kenn du ko mën a euh, na nga saraxal mhm. xam nga ne mbër ku ne fee dañ dem ci juróomi sëriñ wala juróom benni sëriñ mm-hmm. kii ak pàccam kii ak pàccam kii ak pàccam ku nekk sa rawaan bi nga àndal ñu yee rawaan yëpp nag taxaw kon moo tax nag nit ko di ànd ak euh, euh, mbër yi war nga mën a fagaru ci sa bopp ba mbër moo nekk ci jëw di def di di defar boppam yor ay bital di sang boppam di sang sang benn doomu aadama bu jàkkaarloo moom ñoom bital bu ñu yëkkati rek seen bopp lañ koy xëpp ah am na wala bopp lañ koy xëpp waaw mi yow nag ma kon masamal yow mi xam ne yaa ànd ak moom war nga mën a fagul sa bopp ñàkk sa bopp yow tamit ba la muy daw moom yow tamit yàlla musal la parce que ku ne xam nga ne mbirum mbër dafa dangereux ñoom nañu am factu nañu am victoire c'est l'essentiel pour ñoom mm-hmm. waaw ko mën a amee nag nañ ko amee waaw nuñ ko war nuñ ko mën a amee rek nañ ko amee di rawaan wu ne ko fayee kon nag kuy ànd ak mbër war nga mën a fagul sa bopp ak ñi nga xam ne ci stade bi ak ñi nga xam ne sax demuñu demuñu ndax rawaan yi ñuy yee ñoo bari bu na nag lune ne lu ne da nga koy dégg nga wax ne ñuy yee ñoo bari mbiru di jar sarax bi danañ ca ko am sa xam ne jinne la ñuy yee jinne ñi leen di bàyyi futtaal ba na leen lu na ci dëkk bi waaw waaw kàngam bu ne na ci dëkk bi Mali wute fii Guinée yi ci Mali danañ ko yee mbaa yi ca Mali danañ ko yee ñëpp fekk suñu waat fii. ñëw doon lekk fii ci maa la ko wax delloo ci ñu nekk fii fekk ñu fi nekk rawaan ñu fi nekkoon Guinée yi fi newoon ñu boole ànd ak ñoom jaxasoo kon ku ne war ngaa mën a fag fagul sa boppam sañ bi nit day fagu ci boppam mm-hmm. ne ci xaxa foofu yi dama ne ko ñemul xaxa foofu xaxa foofu na la faat na la fuuf fu fekk lay def ci bépp ci dañu ci mbëri ci mbëri ci mbëri mhm. mais am na mbëri ñoo xam ne du bëri wuñu waa ay mbër lañ ak ay dëgg ay mbër lañu mhm. <laughs> te duñu ay te duñu ay mbër bëri mhm. boo duggee seen salle de bain ay bitéeli bitéel nga fay fekk soo lambee seen digg li fees teel lay def waaw effectivement kon nag ku ne war nga mën a fagaru mu ci milieu de travail yi mu ci wàllu sëy ak fépp nag ba ci ba ci ba ci yi sax ba ci baykat yi ba ci baykat yi da ngay nekk ci mbéy di ci di ci bay. di ci doo xam ne mun nga cee am. am sa benn boo xam ne keneen koo xam ne moom ci toolam mën na ci bay. fagaru boobu jiwee mu sax ku ne ñaan amul. boobu dañ laa téyewul bu la téye nga xam ne ñaan am na. ku fontoo sëriñ si mbaa ngay fontoo seetkat yi boobu dañ laa téyewul nit danañ ko téye ba mu dof. Hmm. te kenn dofloo ko yàlla dofloo ko nit a jaar ca moom ba dofloo ko. boo fagaroo dem ca sëriñ mu defal la cee ñaan war nga dem ci setkat kii lu ko jot kii dañ ko laal lii nekk lii nekk ci moom du tayef nangam ak nangam la lu jóg ca loolu dem ca maa ñu sang ko fa defar ko mu ni cocc effectivement effectivement àddunaa ni demee léegi noonu mhm. jamono yàqu na yàqu koo xam ne gars yi amatuñu yërmande mhm. jinne yaa ngi ci biir doomi aadama yi yàq yaa ngi fi ñew seen xel yi ñaaw yaa ngi fi. Mm-hmm. pourquoi pas doo dem seen pourquoi pas doo dem ñaanlu. effectivement. moo tax ñu wax na ne mbëri ñoom it foog ñu ñàkk seen bopp. Mm-hmm. lu mu leen jaral da leen koy jaral ndax mën ngaa sàggane sa bopp mbër mi ngay àndal moom sàgganul boppam. effectivement. nga ñëw jàkkaarloog mbër mi naan man gay gaynde laa gis wala jinne laa gis. Mm-hmm. man li ma gis du nit jàkkaarloo maag nit parce que dafa fekk boppam. dafa jóg ci boppam dawul ay gàllaajam. ànd ak rawaat. yi mu ko waxee na dootoo gis dootoo gis euh, nit ki rawaan moom mu àndal moom ngay gis. bu la fekkee nag yow nga ñàkk sa bopp boo gisee gaynde bu la bu gis gaynde moom gaynde lay gis maa ci seen wàllu bopp moo ci wàllu gàllaaj dafa am solo si. Mm-hmm. sàggan ci wàllu gàllaaj yaa ngi sàggan ci loo xam. am ndax fu mu ne dëkk bi lu ne fi. xanaa kon loolu mooy waral léeg-léeg nga gis benn mbër ñu naan dafa yaru dafa noppi mais bu duggee ci làmb ji ba xëppoo ay gàllaajam. nekk dafay mel ni beneen nit. ñu ah. naan dañ ko xabtala ju ah. kon loolu moo koy indi. looloo koy indi mbër dana yoo sax di dugg si xaw a tuuti am lu mu sangoo rek sekki yor doole goo xam ne maar day taal pour nga sikkati benn tànk bi problème nay doon dis gan lay def boo ko na yëkkat nga xam ne yow li nga yëkkatee atuma ko fekk daf mbirum sangaay la li lay jox la wala galaaj bi la jox ko takk ko day mel ni gay de xool ko ci Balla Gaye mhm. di bëri ko gay de ko rek rëpp yi mi def et bu bëriwul day bu bëriwul day daan teg kenn gënu ko baax ak rafet xool lool mhm. waaye buy bëri bu doree ay bagaasam ba taxaw nga xam ne gay na taxaw rëpp rëpp ji du neen sañ bu ci paree tekk lay def tekk mhm. ah, effectivement naaj dafa am doole. ko def. Mhm. ñun fa fa boobu la yàlla may ñu africain bu dee toog fite laam. Mhm. ak i bombam ñu ne lii lañ yàlla may. Mhm. da nga takk galaaj ñu ñu jëmale fetal ci sa kaw du tàkk ñu jël jaasi. jëmale ko sa kaw du dàkk lu ko waral galaaj la. kon ñaanloo seetlu. ñoo ànd ñoo bokk ndey ak bàyyi. effectivement munoo ñaanlu te seetlu woo. allah kulli ali. munoo ñaanlu te seetlu ko. Mhm. ka ngay dem dafa ñaanlu it. foo mu seetal la mun naa xam fu mu lay jaar. kon seet am na solo. Mhm. ñaanlu am na solo. voilà waaye balaa kenn di ñaanlu da nga seet. bi mooy wane yoon wi muy ubbi yoon wi. Mhm. su ubbee yoon bi ñu xam kii kat fan lañ ko war a jaaree pour ñaanal ko man sarax nga ci war a génnee. pour mën a atteindre ci moom la nga bëgg def ci moom nga am mën a am ndam. ah ñun defal sarax nangam ak nangam ah sarax bi boo ko génnewul la mën ñaanal de dama nga génne sarax bi pare soo ma ñaanal sax kon seetlu dafa am solo sëñ bi mhm. maa la ko wax takk dafa am solo sango dafa am solo waaye am foog nga sama yaram ngi bëgg a <laughs> sa yaram bi ngi bëgg a tàng fi nga jëm ak man dafa am solo lool mhm. ah, te gars dañ koy faral di sàggane effectivement mhm. ci sàggane ci bu baax am solo effectivement fii la kula kula ne sàngal xam ñu koy waxee sangul xaw ma ni ñu koy waxee. bu leen sangul sa taar la bëgg. mu ngoog dëgg la kon na sangul. Mhm. sa taar la bëgg. kon nag na gaa yi sangu ba set. na takk defar seen yaram. Mhm. macha allah def seen i sarax am na leen jàllale parce que xale yu góor yi ñëpp a bëgg liggéey. effectivement xale góor yi ñëpp am jom mais dafa am ñoo xam ne ñoo ñoo bon. Mhm. ñu dem ñu dem de waaye yow doo dem. effectivement kay duma ko nangu nag. sagam yow mi nga xam ne yaa moom yaa moom sama yaram wi yaa ca bëgg a def lu parce que man ak man ni ko moom. Mhm. boo ke defee ñaar fukk pour bëgg ma lu ma bon ma def ca téeméer pour bañ a bon effectivement am déet effectivement lu leer nga wax am déet sama doom lu leer nan li nga wax <laughs> defe naa ni sax nag gàtt xel sax munta weesu euh, mbër bi bi nga xamante ni nga supporté moom day toog seetaan interview mhm. jël téléphone am woo sëriñ bi mhm. sëriñ bi may ko biteel may ko sunguf defal ko ndomba mu takk yow ngay supporté mbër bi na déedéet gëwuma sëriñ bi ah defe naa ne yaa ngi ci erreur yang ngi ci erreur ndax boo xoolee mbër ba ngay àndal balaa dem balaa mooy sëgg ci wàllu bëre bëre ba waaw di nga dina seeti fukki sëriñ ak juróom-ñaar effectivement dem Casamance ñii dem Mali ñii dem nu mu tudd ci Chine ñii ku nekk fu nekk dem end, te am na fi effectivement gàddu seeni bagage daal di ñëwaat kon buñ ne yàbbu yam sëriñ amul wala seetkat ay foo